عليه وسلم لك في الجنة أربعون مقاما من مقامات الأنبياء كتاب, كتاب في كتاب الرماح الفصل الثامن وثلاثون في فضل المعلقين متعلقين نعم دونك نعم وفي الجنة العليا له أربعون من مقامات أنبياء من غير ريبة قاله صاحب درة الخريدة نعم cheikh cheikh waaye xam la moo leen njëkk a woon cheikh lii ay sos la yow koo xam ne yonent bi ba mu ñëwee ci yow yow yow ci sa bopp rek ci sa sa bi day ñëw yow yonent bi nga xam dafa jógee Madina dem ba mag amul lu lay wax luy jëriñ umma islamiye bi lu dul téye la yow sa jëmm ji rek yaay ponkal bi yaay ngadd bi yaay zoro bi yaay Tarjan bi yaay moustiquaire bi yaay Superman bi yow daal yonente bi ba mu ñëwee amul leen daal lu muy def amul leen lu lay yóbbante ci xeet bi lu dul yonente bi daal yow sa bopp rek la lay wax yow yaay nangam bi yaay nangam bi yaay nangam bi yaay nangam mais foofu ngay xamee ni lii du dëgg foofu ngay xamee ni wax ji kii moo ko créé ngir màggal boppam mais du yonente bi sallallahu alayhi wa sallam lenn lu cheikh daje bu mu dajee yonente ci lu mu wax moom cheikh amul lenn lu mu koy yónni ci xeet bi. lii wax ko waa xeet bi lii nangam nangam ay mais yonent bi lépp daal yow sa bopp lu mu la wax yow sa bopp Cheikh nag gën na osé nag ñuy gën a dem nag yaramam tàng na instant yi yaramam tàng na jër Cheikh nee na yonent salaa sallam nee na ko yow ci aljanna 44 maqaama ci maqaama yonent yi 44 ah noonu la wala 40. 40 40. 40 am ci maqaama yonent yi biir aljanna. <laughs> maanaam waxu ko rek am nga maqaama yore tey de yam fa mais maqaama yore tey am na ci quarante moom Cheikh biir aljanna est-ce que dégg loolu kay loolu ci gàttal moom mooy moo raw yonente yi rek. fuuf moo leen raw mais nag mënu ko wax carrément parce que mu ko waxee carrément ña fa nekkoon dañ <laughs> dañ koy sifaay nee am na. quarante maqaama biir aljanna ca maqaama yonente yi ça veut daal moom aljanna moom moo raw maqaama parce que aljanna maqaama bu yonente war a am moom am na ko quarante comme Cheikh daal nee na maqaama moo raw maqaama yonente yàlla nuux moo raw maqaama yonente yàlla ibrahim moo raw maqaama yonente yàlla yusuf moo raw maqaama yunus moo raw maqaama yonente yàlla huud ismail shuaib ilias iliasa yaquba ah Muusa Haarun Idris Zakariya Yaxya Isa Cheikh nee na ñii ñëpp yonente yëpp moom maqaamaam biir aljanna moo sut yonente yooyu yëpp. Cheikh Cheikh moo formé Pétain. ak ak yonente bi sallallahu alayhi wa sallam lu ci gën a ak yonente bi ak yonente bi. tijaani lii lañ gëm lii lii la tijaani gëm de tijaani lii lañ gëm lii ngay weddi ñu tëj la kaso lii lii caaxaar yi quoi Mickey yi Cartoon Network yi Tom et Jerry yi ngay weddi ñu ne dañ lay tëj kaso lii di ci bépp jullit bu ko lii nga xam la ci bépp jullit bu weddi ko doomu aadama jullit nga war a lii lii ngay weddi ñu ne la ràpp biir kaso ne da ngaa weddi neen ndax Sénégal dañuy tëj nit parce que da neen da ngaa weddi neen lu amul fenn te da ngay nekk ci biir dëkk juif yi biir dëkk chrétien yi yow ngay dekk en tant que jullit biir dëkk juif yi ngay dekk di leen dal wallahi dara du la wokk dara du la xuri mais Sénégal da ngay weddi fenkat da ngay weddi narkat weddi fenkat yu la ràpp ci kaso bi. da waa waar ma ne benn mbokk démb dafa ma doon wax mu ne ma ñuy waxtaan quoi mu ne est-ce que jotul ñu jël mën xëju ñoom bun base ak albani ci lu ñu wax ni na sunna yi bu ñu nekkee fenn di wax dëgg ñu néewal leen doole est-ce que du ñu dem joxe consigne de vote ci keneen koo xam ni musul bokk ci système bi musul lëkkaloo ak sëriñ yi ma ne ko ah loolu nag loolu dafa mel mu ngi xeeñ nag parce que li yëpp lu ñuy def jaay doole la rek li yëpp ñoom ñoo gën a xam ne lii teguñu ko fenn parce que Matar Sarr mënul toog lu dem mu yàqu docteur Ahmed Lo lu dem mu wax ko docteur Ahmed Lo Pape Sarr jël ay photo saaga ay nit taf seeni photo croix ko saaga leen saaga fu mu gën a ñaawee fu mu gën a bonee tuumaal leen mu jul fenn zéro yow nga ñëw nga weddi dëgg yow nga ñëw nga weddi neen kii ne yonente bi nee ko yaa gën sa maqaama moo raw maqaama yonente muy ay fen muy ay neen ñëpp xam ne lii ay neen la ñu ne yow neen boobu ngay weddi moo tax ñu tëj la te ngay nekk ci biir dëkk franc yi yow di dal franc-maçon yi franc-maçon yi di la tolérer loolu te fekk seen dëkk la ñoom ñoo ko moom ana modérateur yi mais ban dëkk la ñu nekk wax ji ku ko weddiwul lan la war a def ku weddiwul ni moom nee na maqaamaam biir aljana moo raw maqaama yore tey kii nit bu ko weddiwul jullit bu ko weddiwul lan la war a def cheikh yonente yi de waxuma la yow waaye sax maamaati maamaati maam sax seen catuwee sax àggul yonente bi yonente bi seeni catuwee sax àggul ko cheikh yow li nga a mooy di nga dugg wala doo dugg parce que fekkee lii yaa ko wax bu fekkee yaa wax lii yow li nga war a lijjanti mooy di nga dugg wala doo dugg mais pas ay xëccoo ma xaamal yore tey yow sa problème mooy est ce que di nga dugg wala déet parce que lii nga fi bàyyi xeet bii nga réeral ñi nga réeral ci ay nit gëm gëmloo leen yonent bi moo la feeñu jox la benn wird wird bi soo ko wirdee day toll la nga jàng alxuraan six mille fois wird bi soo ko wirdee da cheikh lu ñu war a xool mooy est ce que yow di nga dugg. est ce que nekkul loolu moo tax mu xaddamam yi di saaga ay yanandu. si parce que dañoo gëm ni ñoom bu ñu ko jëlee dañuy dugg bu ko jëlee si fini ay Moustapha Sy loolu boo tax ñuy toog di saaga yonent bàyyi Moustapha Sy toog tamit saaga yonent loolu la ñu gëm dañoo gëm ni ñoom ku ku gëm Cheikh yow àgg nga yow yaa gëm ñëpp yow nga bàyyi fi lu la weng yow ñu xool négocier boo xam di nga dugg wala duggoo ñu négocier boo xam lu ñu wax ne yow chrétien ngoon wala déet dëgg la wala dëgg ñu négocier loolu. nga bàyyi ko loolu nag de nungu dee dee yow rek léegi yow sama baqaawa bil aljanna yàlla la wax fa ulaika alladina anama allahu min annabiyina wa siddiqina wa shuhada wa saalihin yàlla maqaama yonente yi ñan la jiital maqaama biir aljanna yu gën a kawe ñan yàlla jiital annabiyin gis nga ñoom la jiital biir aljanna annabiyin wa siddiqin ñu dëgg gëm yonente yi wa shuhada ñu dee ci yoonu yàlla ànd ak yonente yi wa saalihin ak nit ñu baax yow pour nga bokk ci li ñu baax yow problème la loolu dañ ko war a gérer yow yow day war a lijjanti yow est que ci li ñu baax nga bokk dañ ko war a gérer parce que fekkee lii yëpp yaa ko wax fii li nga sos fii nit ñi lii mënoo ko def bokk ci awliyaa ullaay yàlla nee na yonent gën a maqaam ñoo gën a kawe maqaam biir aljanna ndax firdawsil aala yonent yi ñoo fay dëkk loolu am na xadis bi ci ñëw yonent yi ñoo fa nekk. siddiqiin ñooy deuxième martaba shuhadaa ñooy troisième martaba yow ngi yow nee nga yonente bi nee na yow cheikh yaa ma gën cheikh loolu la wax de yonente bi gën parce que fekkee yonente bi boole na yow sa ca yàlla day tolloo quarante maqaama ci yonente yi comme yow cheikh nee nga yonente bi gën da koo wax nii rek mais laasi bu wax bi loolu lay wund yow yaa gën yow yaa gën yonente bi yow cheikh comme bii mooy fukk ak ah eh, pëndax bu weex bi bi nga xam ni pëndax na ko ci yonente bi sallallahu alayhi wasallam ko wax ji moom xam naa ni képp kuy tuuti am tuuti ngëm yàlla rek jaru sax jële idil ay dalil ku am tuuti ngëm yàlla nga xam ni wax ji ay neer la ay kasaw kasaw la na bu fekkee am na ñu mën a layal wax ji bismillah balaa ñu dem ci beneen daanaan yow Baye Cheikh mi ngay woowee Pété. kii moo jàngal Pété kii li wax Pété waxagu ko. ba xam nga ñun des fois a ko xaw a fàtte moo raw Pété <coughs> moo la gën a garaaw fop fi wax kenn wax ko. aywa. وعجلتم بإسماعيل gaa yi ñu ngi ci ruq de dañu dugg mais ñu ngi ci ruq di seet. naam salaamaaleykum wa rahmatulah. salaam salaam wa rahmatulah barakaatu. mais yéen waa ji xëch xëch moom xëch mais mais mi far na de ah. खशले खशले फरनट मुझे मुझे पेटे मुझे पेटे बर्फ पेटे नो कीमो कीमो ये पेटे हैं कीमो ये पेटे हैं खशमुम एक्सेप्शनल एक्सेप्शनल moko jang xam nga xam nga fenkat bu dëgër fit baaxul meewkat bu dëgër fit lu mu meew xeeb ko waaw lu meewoo log la ci yàlla Tijaan yi dugg si leen waaye man Tijaan rek laa bëgg ñu dugg si Maxtaar Sarr anamu doon ko lancé invitation xanaa mu ñëw layel meew yi. na ak ñi mu yabal jam leen yónnee leen ko kii lien bi ni ko na ñëw si layel meew seexam bi dëkk boo xamee ni ñi ñi <laughs> suñu live ñoom ñëpp ñëpp waaw ñoo ngi ci roq yi di seetaan live bi de Matar Sarr xam naa yaa ngi may dégg de Matar Sarr ñëwal nga layal sa sa kii moo gën ñoom docteur nii waaw naan gars dañu waroon retirer plainte bi te yow saa fi mu nekk nii ñun yàlla lañ leen di plainte de wa rabbil kaab bokk daa waral bas kanam incha allah après dina dina bu dawalee bi si kanam après ñu nga yëgaat tonton Ismaël waaw Matar Sarr daal yabaate la def yabaate ak foo naam benn damal ci ñetti damal ci beneen beneen sos mi